président defee déclaration nag ñooñu nag dañoo tiit tiit gi ñu tiit nag moo tax ñu tëb di euh, waxuñu ni jëluñu de mais dañoo bëgg a gëmloo Cees waaye nii ñoom jël nañ mais ñoom ak ñëpp yem. moo tax ñu commencé di ci tudd maire yoo xamante ni maire yi bi ñuy séddale terrain yi fekkewuñu ko te kenn joxu ci benn maire ay cinquante terrain wala cent terrain communes yi la ñu jox ay suuf te commune bi ñeen ko joxee ci kanamu conseillers yëpp conseillers yi nekk benn Bokk Yaakaar ñi nekk PDS ñi nekk Yewwi Askan Wi yëpp lañ ko indi en toute transparence ñu séddale ko tey la question nekkul suuf si ñu jox ay maire ñu seddale ko question bi mooy ay benn nit naka lañ ko mën a joxee treize hectares benn nit nan la mën a jëlee cinquante hectares benn nit nan la mën a amee cent cinquante hectares alors que am na ay doomu Cees yoo xam ne ñu ngi bëgg fu ñu dëkk mënuñu ko am donc tey question bi mooy Ceesuwaay li ñu bëgg mooy suuf soosu nga xam ne nit ñi jël nañ ko ñu delloo ko Ceesuwaay yi ñu mën ko séddoo pour que Ceesuwaay bu nekk mën a am benn terrain. képp koo xam ne dañoo jàpp ne da nga jël cinquante terrain wala cent terrain wala cent hectares mais na ko président nangu delloowaat ko ci askan wi les Ceesuwaay ne réclame que ça.